salaamaaleykum wa rahmatullahi wa euh, bokk mbokk Sénégal yi nuyu naa leen di leen siyaare seen mbokk la Medoune Diop Watawasaw Bil waa tey ñu ñëw tey ci tontum laaj ndax léeg am ay laaj yu ñuy dikkal ku am ay laaj yu ñuy laaj tamit bu la neexee mën nga ñu koy bind ci suuf incha allah muy euh, euh, question ak réponse incha allah rabbi waa est-ce que benn ma sama yére bi sax ndax booy def émission moom da def xool bu baax a baax léeg-léeg ma sol sama yére benn ko te duma ci sax bàyyi xel waa di siyaare ñëpp sama gaa yi ngeen partagé mu yaatu waa laaj bi ma dikkal mooy waaj ji dafa laaj mu ne ndax ibaadu yi ay nit lañ ko waa comme ibaadu yi loolu mooy laaj bi quoi ndax ni muy déggee ibaadu yi ci réseaux sociaux yi mel ni daal ay gars yi ñàngalan yoo xamante ni si ay nit daal ay nit yoo xam ne ñoom amuñu jàmm quoi ay nit yu méttee métti ay nit yoo xam ne saa waay buñ gisee murit fii duñ la nuyu buñ gisee tijaan dañuy geer ak yow ah buñ gisee benn laayan dan waaye dañuy xeex ak yow waaye laa salaam wala kalaama waaye metti mooy laaj loolu quoi dama tamit ndax ñoom Sénégal lañ juddoo quoi ndax ay sénégalais lañ tamit ci loolu laa lay tontu sëriñ bi ibaadu yi ay nit lañ mooy question bu njëkk bi mooy ibaadu yi ay nit lañ ko ay doomu aadama ay nit nekk ay sénégalais ñu juddoo Sénégal màccee Sénégal ay doomu aadama nag ay nit lañ ibaadu yi ñoom dañuy jaay ci marché yi li nit ñi di def am ay place ci marché yi boo demee Colobane am na ay ibaadu ca marché ba. nga dem marché caaro yi am na ibaadu nga dem marché Sandaga nga dem ca fa ñuy jaaye Alizé bureau yi ngay dugg yëpp bureau yooyu am na ibaadu boo demee Italie am na ibaadu nga dem Espagne am na ibaadu nga dem Amérique am na ibaadu ay nit lañ quoi am na ay mécanicien am na ay tôlier am na ay suudar ba pare ñuy am xarit ñoom ay doomu aadama ko ay nit lañ quoi di am xaritu tijaan am xaritu murit am xaritu laayeen am xaritu chrétien ay doomu aadama la ay nit lañ pour loolu nga xam ko léegi nag lan moo tax léegi ñu mel ni dun ay nit ci réseaux sociaux yi loolu nga war a lijjanti lan moo tax ñu leen di diaboliser façon diaboliser bii nga xam ne yéen a koy gis lan war a loolu yow da gëm li nga gis pas comme yàpp wi leen askan wi yabee yéen mel ni doo leen ay nit ci réseaux bi sociaux rek lañuy toog ci Facebook bi rek ko nekk toog wala loola neex wahabis fis kii dafa bon kii dafa lii mais yow li ngay gis ngay gëm yow mi nga xam ne ab téyeur nga Baye Ousmane Traoré maa ngi lay siyaar di la papa di la ñaanal jàmm yàlla na yàlla bari ñu mel ni yow Baye ñun de ñu ngi ci daraame moom ñun moom ñu ngi ci jaaxanke jaaxanke jaaxanke yi ñu ngi ci yéen de fi toll nii macha allah jaaxanke jaaxanke waaw jaaxanke moom yéen lislaam gi moom <laughs> am leen fu la am yàlla xam ne loolu. ab leen fulla am leen fayda ndax problème bi kat mooy yéen senegal ndekete yoo seen maam ñoo fa njëkk kii ci diine ci lislaam gi ay si ay mbàkke ay ñas ak ñoom ñëpp bëgg a ñëw nangu kii bi lànk leen bañ leen imposer leen seen sant maam seen sant yi moom macha allah ndekete yoo diine ga Sénégal moom ma nga jaar ca jaaxanke jaaxanke ak ñoom dramé ki ñooñ waaw gis ngeen de senegal mom moy lolou mom legui ñu ñew daal jël ay sante rek ñew sante yo xamni ñom fi lañ ñew fekk fekk sante jàmbur fekk mamu jàmbur yi l'islam lislaam pare eh, dëkk bi bu du wara señ Bamba gën torox bu du woon a Alaaji Maalik torox bu du woon a Baay ndekata yo <laughs> mamu usman Ousmane tay wi gën di ndam ci diine gi ndekata yo maamam mom ñom ñoom ñoo fi diine gi kon kay kon Dramé Dramé kon mom mom ñooñu ñoo waroon nekk ay sant yi kii bàyyi leen seen affaire bàyyi leen affaire sant yi ngeen ñëw di ñu ko tegal parce que yàlla man de maa ngi si jóob ak jaaxanke jaaxanke jaaxanke jërëjëf jaaxanke ndax bu doon ak jaaxanke yaakaar naa ni diine gi dugg Sénégal léegi daal ñeenti gàlle yi rek ñëw ñoom koj ko moom téye diine gi muy Mbàkke ak si ak ñas ak euh, laay ak laay <laughs> ne ñeneen ñi seen sant maam yi duñ dara ñoo lànk ñoo bañ ay sant kenn du ci gën kenn Mbàkke Jóob Mendi Pereira gumis Ñas si yëpp benn la yëpp benn la fa yàlla yàlla fi muy xoolee ay jikko la waaye du ay sant te sant yi dàq naxaate sax mooy sant yi yi yi fi lim ñooy sant yi nga xam ne di bayloo ñii tool du leen fay dara tous lan dul fay bàyyi loola ba nga bëgg a dee naan laay àjjana ak <laughs> sama maam dina dinaa dugal àjjana tere nga naxaate rek barki yàlla ne nag kenn warul am xam na xamu na ku dul ñoom si xam-xam bi danga koy doon yàlla mooy maye daal yàlla yàlla yàlla mooy mooy maye waaw yàlla mooy def gën ngëneel ku ko soob yow li woon ni yàlla moo jox ngëneel ni sant Mbàkke ak si ak ñas ñoom ñoo fi gën seen sant loolu ci ngëneelu yàlla la foo ko teg foo tek kuy nan sangara moom sangara dafa haram muy ko sante mbénteeg bu ko naanee da haram ku sante job bu naanee sangara da haram mi def lu haram ku sante Ñas bu def bu eh, naanee sangara dafa haram mi def lu haram ku sante Si bu naanee sangara dafa haram, loolu dafa haram. ku sante Mbàkke bu naanee sangara dafa haram, loolu dafa haram. yépp a lu haram, moom lu bon moom lu bon la rek ku dekk makka bu defee bu naanee sangara dafa haram ku dëkk Madina bu naanee sàngara dafa xaram ak fu nit mën a dëkk lu bon moom lu bon la moom mooy boobu mu doon saoudien la mu doon ëhlu Mbàkke mu doon ëhlu si mu doon ëhlu Jóob mu doon ëhlu Mendi mu doon ëhlu Perera lu xaram lu xaraam la rek léegi nag côté googu may wax ñeenti gàll yooyu nga xam ne ñoo fi teg fii Sénégal samp fi mbir yi takk ñuy jaam ñooñu ñooy xeex alxuraan ak sunna du kenn ku dul ñoom ndax ñoom ñëw nañ gëmloo nit ñi seen bàyyeeg seen maam yi takk nit ñi ay esclave léegi nag l'islam day libéré nit léegi comme ñi wax ay wahabis ay ibadoog yooyu ñoom li nuy wax muy alquran ak sunna comme li ma wax nii sànq alquran ak sunna lu xaram lu xaraam la ak koo ko mënta def acca nag kenn moomu ko ku jaamut yàlla perte ga boo deewee yàlla nga amal affaire boo deewee yàlla nga amal affaire numéro whatsapp incha allah sama sëriñ xam nga boo boo boo kiiwee boo jaamut yàlla yàlla nga amal affaire du kenn ku lay kii fenn àjjana nit ki diine jàng la ci gën ci yàlla mooy ki la gën a ragal yàlla soxna si per favore eh, télévisore Per piacere. waaw léegi léegi laaj bi nga xamante ni si laaj bi nga xamante ni si maanaam moom may laaj ci laay ñëw léegi ñi nga xamante ni si maanaam nee nañ comme ibaadu yi ay lan la nag loolu ma ne leen yow nit nan ngay xamee doomu aadama mooy ñi nga bokkal marché ki nga xam ne yéen a bokk di jaay ay jikkoom ci loolu ngay jàppee nit ki ci ay jikkoom ak i doxalinam ci li nga xam ne loolu nga gis mais nekkul ne ay nit yoo xam dañoo ñëw bañ nit ñi contre nit ñi nga xamante ni si gis ab Baay Faal rek ne kii du julli du woor du ma ko nuyu wala gis ab Tijaan ne kii maanaam ahlu bidaa la du ma ko nuyu du ma wax ak moom loolu amul loolu c'est faux loolu lépp pour yàq der rek la bu leen déglu ay réseaux sociaux comme lu nit ñi di wax mais xool leen nit ñi ngeen di dundal ay nit lañu ndax Sénégal ñaari type doomu aadama ñoo fa am ñaari type nit tarixa yi dañoo ñëw fii nax nit ñi léegi nag am na ñoom danoo yeewu ñu nekk kémit am na ñoom ban yeewoo ñu xool takk jaam yi ñu takk jaam muy suñ tarixa yi takku ñu ay jaam ñu xam ne lii du diine xel fekkiwu ko ñu ñëw bitim réew gis beneen mentalité ndax da ne senegal mag ñi baax ñoo fa wàcc te jàmm lay am ñu gis bitim réew fii ëpp jàmm ay xéewal yi ngeen wax xéewal sëñ bi indi xéewal xéewal bu ñëwee fii la xéewal gi ëppee bu dee wàllu koom-koom xam ngeen ni Sénégal oto ndam la fa fii oto du fi ndam fii am oto du du fi ndam mais Sénégal dëkk bam ku fa am oto sax yow patron nga ana ban xéewal la leen sëñ bi defal fii fii moto du fi dara moto du fi dara fii ay dàll so yére yoo sol du fi dara même boo ko amul sax am ku la ko may kon xéewal kon fii la ëppee léegi ku ñëw ba gis seen waxi caaxaan yooyu ngeen xam ni ay dàll bot sax ku ko sol Sénégal sax mel ni dagaa kii ay ginaar ngeen xamante si ni maanaam ginaar mooy li gën a kii mooy noos ci yéen loo xam ne fii da ngay lekk ginaar ba di laay ceebu jën moo lay daaxal ginaar fii moom problème mu lekk moom amuñu ko du problème mu solo du problème oto du problème mu dara du benn problème bu bu fii fii bokkul ak Afrique waxuma nag pour ngeen jaar ci gaal di dee wala leneen ndax nit ki tukki moom picc ngi naa waaye xel maa nga ca suuf waaye fii moom bokkul ak Afrique yéen seen Afrique googu ngeen seen maam yi ñoo fa wàcc moo ëpp xéewal sëñ bi yàlla daf leen ñaanal sëñ bi bàyyi sëñ bi dara la fa bàyyiwut Afrique mooy Sénégal mooy dëkk bu gën a torox benn sëriñ bawu fa dara ak torox taagoo gi métti li ñuy amul jàmm amul xaalis amul liggéey amul yére yu doy amul dëkkuwaay baax dara amu fa dara ñi gën a walaakaana mooy ñun léegi nag boo toogee ñu naan ay xéewul sëñ beeg kii defar na àdduna defar na àllaaxira yow mi ñëw fii Europe da ngay xam ne lii ay waxi tappale dëgg la du waxi dara léegi nag diine googu nga xam ne diine googu am diine ak naxaate diine ak takk jaam léegi boo ñëwee fii dangay ngay léegi nak bo démé ba yeewu yow waxuma ay sunna ay bida ak ay li haram na li dagan na mais xel moko fekké wut ba tax né légui goné gi après da danaan moom dootul toppati benn sëriñ dootul toppati diiné li du diiné diiné baaxul lool lay wax ndax diiné gu bon ngeen présenté nit ñi diiné bo xamni képp ku top ci man dang may dang may dang may jaam damay nekk sa jaam tak la esclave suma ma bam dess ci ngay soga a ay sagar ngay sol may sol ay yëre ki ngay tok dima ramal dima jox sa xaaliss ma lay yoni yow do tekki dara legui nak nit ku am xel bu deme ba xam loolu ñaar yi rek lay mën nek nekk day dem ne man li du diine damay japp ci alquran ak sunna wala mu ne lii du diine mu nek kemi kemi gi yep sëriñ ci ñoo leen produire tarixa yi ñoo ñoo produire chimique senegal ndax diine gi leen présenté la xam nga nit mom buñ la takkee jam nga nek ci lo xamni ne nga nek ci lay xam dalay woné li du dara après da naan xaaral kon ma xeex benn combat ndax nit il faut nga jaamu nga ne xaaral léegi mu ne day nekk der bu ñuul moom der bu ñuul lay xeexal moom deram lay xeexal mais nekkatut leneen luy mu indi ay kémi looloo tax nit moom après alquran ak sunna ngay jàpp ñu la wala ñu yeela ci wàllu àdduna loo xam ne moom après yow àdduna rek ngay wër côté àllaaxira doo ko wër lii la ay mbooloo ibaar yu ngeen di wax nekkul ay mbooloo yoo xam ni ñu ne mbooloo la boo am comme ay carte de membre képp ku leen ka waxu leen dëgg ay mbooloo boo xam ne da ngay am carte de mbooloo boo xam ne da ngeen di daje ay daayra di lekk ay gerte caaf ak mante fraise mbooloo boo xam dafa am benn sëriñ bu nekk ci ginnaaw gaa yi di ko bayal muy digal nit ñi ngay ngay toppat di la bayal loolu amul fenn kàddu gi la gaa yi ragal muy kàddu lislaam alquran ak sunna alquran ak sunna képp koo xam ne topp nga ko ñu jàngale li yàlla wax yem saa sa da dul topp ni da nga dul amal njariñ sëriñ si léegi nag loola waral nag ñu am seen soldaar yi leen nekkal ci télé yi ñëw di yàq ay der pour yow nga ragal alquran ak sunna du leneen mais amul benn sëriñu ahlu sunna wal jamaa boo xamante ni si toog na fii di laaj ay adiya wala naan ñëw leen ngeen topp sama ginnaaw ngeen topp sama ginnaaw di ma bayal tool wala lu ma leen digal def ngeen def lu ma leen tere nga bàyyi amut te ku la ko ci wax danga ko naan sëriñ bi jàllal ndar amul amul benn comme li ngeen naan ay sëriñu ibaadu yeeg sëriñu du dëgg fii amuñu benn sëriñ koo xam ne dañuy toog ñi naan kii muy sëriñu ibaadu wala dara nit ki sëriñ sépp yam ci loolu muy marocain ba muy américain ba nekkul dund boo xam ne dund boo xam ne nga ne ñun sénégalais ñun ñoo am daayira sàngam alxuraan wax ak li yent bi sallallahu alayhi wasallam wax am na ñu nekk japon alxuraan ak sunna la ñuy dund mooy ku topp ci alxuraan ak sunna rek topp waxu yàlla ak waxu yent saa da ngeen nduroo julli ñuy def nii nekkul question waa daayira bi ñoo ko ñoo ko créé ñu ne waa daayira yi ibaadu léegi waa daayira yi ibaadu ñoom dañoo am seen façon julli exemple léegi bu ñuy julli léegi dan naa ni allahu akbar ne nii def nii léegi lii waa daayira ibaadu loolu du waa daayira ibaadu waa daayira ibaadu diglewu ko yent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko digle mu doon ay xadis yu wér ngeen mën a dem Japon ngeen gis jullit boo xam buy julli nii lay def nii digalu yent bi salaa salaam la ba pare ni ñu koy defee mooy nduróo ndax dafa ne nga jël sa loxo càmmoñ sa loxo bi nga teg ko ci sa dënn bi fii nga jëlaat bi nga def ko fii nii la ko yent bi salaa dem defee dem leen jàgg si fatu salaatu nabi salaa salaam comme yent bi salaa salaam ni mu daan jullee loolu nag yow booy jullee ni yent bi salaam doon nga tënk ko ci alxuraan ak sunna ñëpp yéenay bokk la julli yéen ñëpp yéenay bokkale même julli même ka nekk Japon du du du ñu ne mbooloo bi Sénégal la nekk mbooloo bi kii du loolu du dëgg alquran ak sunna bu koy nit ñi di dund ñooy nduroo li ñuy def ay naxaate kase dañ leen bëgg nax alquran ak sunna ñi koy dund ñëpp ñoo bokk ni ñuy def ndax ñoo bokk ni ñuy jullee ndax yenti salaasam dafa ne julli leen comme ni ngeen ma gisee may jullee léegi kuy julli nga ne allahu akbar def nii léegi loolu yent bi saasam moo ko digle léegi yow kii bu defee nii topp sunna yent bi saasam jullee noonu keneen ñëw jullee noonu mu ne yemoo leen ta tolloo ngeen sësale seeni tànk léegi yow ki nekk Japon bu jàngee alxuraan ak sunna li yent bi saasam indi ak ki nekk Amérique bu ngeen bokkoon di julli sàppe bi day jub te même ni ngeen di jullee ngeen di jullee ndax digalu yent bi salaa salaam la nekk loo xam ne benn clan la clan bi toog comme ahlu na wal jamaa wala dara ñu ne ñun ñooy ahlu sunna wal jamaa ñun lii leen indi ci diine gi lii mooy créer ci diine gi diine gi lépp benn la jullit ñëpp buñ toppoon ci diine ñoo bokk benn jëf léegi sikkim ba ñuy bàyyee nga gis jullit bi bàyyi ko nekkul loolu benn sikkim la boo xamante ni si maanaam modd la du loolu léegi sikkim bi boo gisee jullit américain ba ak jullitu japonais ba ak jullitu Mali ba ak jullitu Tamba ba ak jullitu fu mu mënta nekk ñu seen sikkim bi kii nekkut kalan loo xam ne carte de membre la doon am benn sëriñ sëriñ bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la moom la yàlla yoon yónni ci lislaam bi ne kii na ngeen ko roy moom moo ne ñu bàyyi sikkim ba kon ku bàyyi sikkimam gudd gi gis keneen bàyyi sikkimam bul ne modd la comme waa ibaadu wala loolu ne tudda leen mais danga naa alxuraan sunna loolu yenn saa sax moo ko digle kon du ay modd tubéy ju sunnaal ban sunnaal tubéy ju tubéy bi boo demee ci jullit japon ba mu def na ko yenti saan doon defee ñun yàlla ba mu ñu wàccee ci àdduna bi dafa ne lii moo tax mu bind ñu li tax mu bind ñu muy jaamu ko te yenti salaa salaam loo ñu royloo léegi looloo waral nag julliti seen mbir yi dinduroo ñi créé mooy ñi créé bàyyi sunna Muhammad salaa salaam créé benn mbir créé seen daayira créé seen i mbir tudde ko lu leen neex ut seeni i doxalin bopp ci diine gi looloo tax ñu wuute wuute bi ñoom la ndax ñoo bàyyi sunna ñoom la ñoom ñoo bàyyi sunna kon léegi kon ki nga xam ne tamit bàyyi na tubéy bi gàtt nga ñëw gis ko du moddu de du question waa daayira bi comme Sénégal ni koy defee comme tijaani mbaxane xonk muriti takk maxtume xam nga loolu lu nu créé la loo xam ne ñoom waxuma leen nag damay critique loolu mais dama leen jox exemple xam nga tey maxtum foo gisee dangay xam ni murite ko moom koppati bu xonk foo gisee da ngay xam tijaani ñoo ko moom exemple mais loolu du moddu lislaam du moddu ba ci même ibaadu sax mën nga gis sax ibaadu itam ñuy sol seen koppati ak seen jàllab yooyu du moddu comme nga tuddee nit ibaadu mais du moddu mais yow li ngay sol lan la la ci yenn bi salaa salaam wax ne la moo la jullit lii sol jullit fii la colinam war a yem tubéy ji bu guddee bokkut loolu waxu yant bi salaa salaam loolu indi ay différent léegi ngay génn sa kër exemple julit yépp ko bokkale mais du ay waa daayira bi ñoom bu ñuy génn lii la ñuy wax wala ñoom lii la ñuy wax déedéet ngay génn sa kër nga ne bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah bépp jullit bu topp sunnata Muhammad saasa mu topp yenn saa buy génn këram day génn comme Muhammad saasa ni mu daan génnee këram buy dugg këram dafay dugg këram comme na yenti saas doon duggee këram buy tëdd dafay tëdd comme na yenti saas doon tëddee yéenay bokk ni ngeen di tëddee yéenay bokk sax ni ngeen di naanee du mottu ndax booy naan jullit bi lan lan la wax lan la saasam jàngale mooy sunna booy naan ñetti yoon ngay naan da ngay góor ni defaat ni defaat ni ñetti yoon mooy sunna loolu mooy sunna ku topp sunna même ni ngeen di naanee sax yéen a koy bokk ni ngeen di naanee ndax sunna Muhammad salaasam ngeen roy roy waay bi benn la tracé bi benn la mu ne geste bi geste bi bii nii nga koy def bii nii nga koy defee boo yeewu sax yéen a bokk ni ngeen di yeewoo loolu alhamdulillahi lazi ahyaana baadama amaatana wa ilayhi nusur waaw Omar Thiam yaa may yokk leçon bi xam naa ni coupé laay def quoi xam naa incha allah euh, dinaa duggaat danaa duggaat xam naa beneen yoon incha allah ma eggale ko mais daal affaire bi daal loolu la kon kon li leen di ñi pour di leen wax rek diaboliser yi ngeen moytu mooy ñi nekk ci télé yi dañ leen nax yow dan lay nax yow mi nga xam ne yow yaa ngi gis yow sa bopp yow mi niy nax yow yow nga teg sa bët ñu lay wax mais façon diaboliser ni diaboliser ibaadu yooyu yan façon nit la yooyu amul senegal amul nit yi leen wax nii ñoom yi leen présenté ibaadu yi amul Sénégal amul nit yoo xam ne fu ñu gisee ab murid duñ ko nuyu fu ñu gisee ab tijaan duñ ko nuyu fu ñu gisee ab bayfaal duñ ko nuyu du dëgg problème bi mooy diine gi ñuy jàngale comme nga ne alxuraan ak sunna li ngay jàngale ko message wax ji ñoom mooy seen problème comme ne yent bi salaa salaam lii la digle yàlla sunu borom lii la digle alxuraan bi lii la wax problème bi loolu la mais du problème yow li ngay dund ak nit ñi ndax képp ku ne dangaa tënku ci alxuraan ak sunna nga nekk ci place di fa liggéey ñu sib la bañ la kooku dundoo alxuraan ak sunna billaahi ndax war nga fa bàyyi jeexital ndax bu dee alxuraan ak na ngay dund yent bi saasam lan la wax si njaay nee la booy jaay fexeel bu bul jaay comme nga jël ay làmp teg ko pour changer couleur li ngay jaay kon yow doo nax nit ci jaay bu fekkee da ngay liggéey liggéey bi lan la la yent bi saasam wax ci liggéey lan la alxuraan wax ci liggéey daawut ba ko yàlla pour yëre xeex pour mu defal ko daf ko ne buton bi bouton bu góor bi mooy bu góor bi fexeel ba bu mu ngande yaatu yaatu boom du xaj ci bu jigéen bi bu jigéen bi tamit bu ma xat xat boo xam ne du xaj ci bu góor bi mais danga koy tollale pour léegi perception bi di dugg normal di dugg normal lool lan la pour même booy liggéey di jaay nit la ngay liggéey nañ ci seet sa digganteeg yàlla ba booy ba booy defar liggéeyal dara nit nanga ko defar ba bouton bi pression bi muy jàll normal quoi di tëju normal di tëjee ko normal mais bul ko def mu xat nit ki jënd ko jàpp ni pression bi kii na bëgg ko tëj ba sonn du ko mën a tëj nga ragal ci yàlla yaakaar naa kon même boo nekkee ouvrier te ouvrier bi nga nekk di nga ci xool sa diggante ak yàlla nañu waxante dëgg wallahi képp koo xam ni dem nga ba nga ne jël nga yoonu alquran ak sunna yow ni nga doon ñaawale ak sa yaay tay da ngay mujj rafetal ak sa yaay ndax ni nga xol yent sallam lan la wax ci wajur nga xol alquran lan la wax ci wajur mu ne la bul ko yuuxu de surtout bu nekké mak nang ko yeureum de comme nim la yeureume ba nga nekké ndaw li la alquran jangal kon di nga rafetal ko nga jëmele sa yaay alquranu karim lan la la jàngal muy alquran ak sunna ñii ay sàcc ki naxee ki caaxaan nag loo xam ni boo deewee texe gaa kër ëllëg bul fa yaakaar dara yow kiiwal àdduna rek ndax dooma jooy mbirum ëllëg ay naxaate la yooyu nag ñu lay wax nag nga nekk seen taalibe loolu tax ñoom wax ji moo leen di déranger mais du jëfi képp kuy dund alxuraan ak sunna fu mu dem war na bàyyi jeexital ci nit ñi da nga war képp ku ne jël naa yoonu Muhammad salaa salaam yow da nga war a doon ku raar ci doomu aadama ndax da ngay jël lu raar wallahi ku ku ne alxuraan ak sunna nga gëm yonent bi salaa salaam ngay roy kooku waroo bokk ak doomu aadama yi ndax yow li ngay xool sa digganteeg yàlla la xooloo sa digganteeg doomu aadama yi li xool dafa ëpp àdduna kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ñëpp buñ doon dund alxuraan ak sunna dëkk bi jàkk wallaahi ndax li lay xamal mooy yàlla ko yeneen tam di nga da ngay gën a kiy dund alxuraan ak sunna kooku noonu dafa war am rafetal ak jëmale waajuram yonent bi salaa salaam ci wàllu kere yi comme lu naan naan xajonte xaj fii ñen ñoo fi xajonte ñi dundul alxuraan ak sunna rek ñoom ñoo xaju la kenn ndax bëgguñu seen caaxaan ay tappale ci boppam du bàyyil bokkaale di jàll bàyyil naxaate di jàll bàyyil sëriñ si di wulli nit ñi di leen bay looy tool léegi looloo tax ñu naan ay xajoog nit ñoom ñoo xajowul ak kenn mais alxuraan ak sunna ku koy dund yent bi salaa salaam ma nga xam ni moom la ñuy roy moom dafa dëkkoon ak ay chrétien léeg-léeg nga gis caaxaankat yi naan da ngeen war a xajoo même comme yéen ngeen mën a xajoog ñi te leen mën a xajoog bokkaalekat te la di xajoog chrétien yi xam nga li ay tapale deug la alquran ak sunna ku koy dund ñepp nga xajjo mais nak buñ démé bay wax ci diiné nak nit di naxé ci diiné yenente bi sallallahu alayhi wasallam di bëgg jël bokalé ko duggal ci diiné dina né li bokalé yalla la lolé seen problème nit bëgg ñëw nax nit ci yalla pour lek xaalisam pour exploiter ko nga ne ko li naxaté la ci yalla li ni du ki problem problème bi motax nak ñuy diaboliser mais du ci dund képp kuy dund alquran ak sunna koku wallahi da ngay rafetal di ci nit nekul ni nit bokkaale na nga ne ko yeufar nga wala ki mais ñun dañu tal temi nañ waxante deug alcorane sunna ki kay dund day reetaan nit la nit day ree jekki-jekki ñu tok fi waxtaan nga am sa ben xaritu Baay Faal wala sa ben xaritu tidiane wala kenn ñu waxtaan ba ree waxtaan ci aduna ree japp ñu ñu reetaan ay nit lañu di waxtaan ak nit ñi di ak nit ñi mais seen yi du waxi dara ay waxi fenn la ndax nit leen présenté la quoi dafa melni dal ay nit yo xam dal nit yo nit yi wax ci wa alcorane sunna amul senegal amul nit yoo xam ne ko du gis duñ wax ak yow nit ki yëfër kii comme ni ngeen koy waxee ci YouTube beeg Facebook bi dafay mel ni maanaam ibaadu yi daal ay dëmm lañ dëmm dëmm ay dëmm daal amuñu mbokk daal ñoom daal kuy murit rek duñ la nuyu la salaamu bi lii lii mais yéen yéen a mën a <laughs> kàcc nan waxante dëgg sama waay amul li leen déranger mooy alquran ak sunna fii dafa ñëw dëkk bi amul diini ay naxaate kase fi nekk yoo xam ne tag bay loon ay tool alquran ak sunna bu leeree kan moy bayal nit tol kan moy tok di yaakaar nit ci aljana eh? kan moy tok di yaakaar nit ci njariñal aduna ak alakhirah da ngay dem liggéeyi jobi ku bëgg xaalis da ngay dem jobi ay tok mu dox serigne ci do len amal njariñ du tok ngay dox wala nga nit ngay tok di tok ci ginaaw nit affaire bi yëpp lool la and ak politicien ah tok fi di tankal nit ñi ci rajo yi ñi dañuy indi guerre ñi dañuy indi ci guerre kat yi yeen la ñu taal bi yeen utiliser len sen xel façon nit yi len wax legui yeen da koy xool pas comme ay ngeen tok fi fii ngeen di toog nit tok ci radio bi di len wax dara mais xol leen ndax nit yoy am nañ Sénégal ak yan façon nit lañ kep ku la ne ki day gor ci alcorane sunna ngeen bayi len xel bu fekke ci place la nek di jaay ngeen bayi ko xel ndax ki triant la ndax koku di ko deg sa xaalis ngeen ñu ñu mu lek ko di len xolé fofu ci jikko yi ndax ki ndax borom pitik bi du triant ndax borom pitik bi du jaay sunguf mais war la jaay juróomi kilo daal di jël balance ba bënn ko xóotal ko taalibe yi rek ko fiy def ay balance la ñuy jël loo xam ne kilo la ñu ñëw gas ko léegi boo xoolee ndeka du mat kilo gën waa libar la kuy dund alxuraan ak sunna sañuloo ko ndax yàlla da lay atte yomal xiyaam mu doon wàll bu rëy rëy mais ñuy cuqi balance ñan lan dàqa nit ñi dàqa nit ñi di loraate lor yi métti métti ba pare jiñ naan ñii ñooy lor askan wi bu fekkee ab tëgg la ngeen dem ndax ñeme naa jël oor bi jaxase ko përëm dee leen dee leen def test yooyu ci ñi nga xam ne nee naan alxuraan ak sunna la dund ak ñi nga xam ne nee naan dunduñu alxuraan ak sunna ngeen xool ndax ñeme naa jël ab përëm. ab or jaxaso ko përëm ndax ñi mëna ciokati balance ba war la kilo ci kaw ni fekk te yo kilo bi manké na ndax kuy dund alquran ak sunna ne mom ngay dund yeen sans dako téré dafa haram riba la ñu ñew ci wàlluk soxna yi tamit ndax tamit kuy dund alquran ak sunna ndax day toroxal soxnaam ndax day tok di door ay jigeen ba pare ngeen ñëw metti affaire nag ba mu metti nag ba mu metti mel ni ñoom daal duñ ay nit am soxna comme yéen di foog soxna yi comme comme di ñu wax sax yent bi salaal dund noobal di dund dund bu neex ay sénégalais lan yoo xam ne dañ leen dañ leen doon nax ñu ami sëriñ sëriñ si di leen exploité di leen wan loo xam ne naan leen lii diine la ñu dem ba xam ne lii du diine ñu xam ne diine lan la alquran ak sunna ñu dem topp ci yàllaa ak yent bi salaam lii rek la kott du leneen te ban kay topp nag jàmm rek la ñuy gis jàmm kase la ñuy gis léegi nag yow diine gu leer daal bul ko dund bul xam diine yàlla gi bul topp alxuraan ak sunna mais fii koo fi gis ndeyam am na fu mu bokkoon am na benn koñ ci ñaari ñeenti gàlla yooyu bu ko ci mbokkoon képp leen otage ñu bokk ci seen jaami léegi nag jaami nag même sa nday bu nekkoon jaam wala sa baay yow nga ficc ko yow yeewi sa bopp ne man du ma jaam te diine gii nekkul ci yéen ku leen yaakaar torox du ci àdduna du ma kenn dem liguel sa bop lo nara a jariñ ñoom nga jariñ ko sa nday jariñ ko sa bay legi nak affaire bobu nak am ñu leen di campagnal legi ku wax ak ñu leen wahabis alquran sunna nga kii affaire du carte maam du carte daira pour loolu ngeen bay ci seen xel amut fi benn sëriñ bu lay jangal ci diine ci alquran ak sunna ne lu qala la qala rasul yalla ne yeb salaasam neena xamante wok mom sekkok mom demalante joxoko adiya boole kook nekkul ni doomam la lay samp mën nga ko kii sax te doo xam doomam doo xam doomam doo amal benn njariñ doomam doomam sax doo ko sax toppatoo lii alxuraan sunna lii leen kii te nekkul lu ñuy doonante xam-xam yent bi saa sam lañ koy doon yow xam-xam bëgg a déglu mën ngaa taseeg doomam sax doo xam ne kii doomu doomu diw la tooguñu fii di présenter seen doom mais fii suñu sëriñ sii moom yéen li ngeen am yéen am clan mais ay ay ahlu sunna wal ibaadu yi amuñu benn clan boo xam ni comme léegi dafa am benn xalif ku ko xam nga ma ci Sénégal dafa am benn xalif ñu ne kii mooy sëriñu ibaadu yi sëriñu ibaadu boobu moom sëriñ la rek jàng na léegi loolu day yóbbaale doomam déglu leen ma de day yóbbaale doomam day yóbbaale soxnaam ba ci ku ma seexal sax waxuma la sax comme ne baax na rek yéen li am seen Sénégal gi seen sëriñ si dafa am fenn yooyu diine léegi nga xam ne ñoom daal ab sëriñ lan bu nekkee sëriñ rek fii sëriñ fii sëriñu tariqa yëpp yow nag soxnaam nekk ko bon a bon mais bu ko takkee rek léegi kooku baax na kooku dañ koy war a ziyaar dañ koy war a jox addiya ndax léegi baax na ibaadu yu doxale woon noonu ci yow nekkal sëriñ rek sa jàng bi nga jàng daal yow yóbbaale soxna su bon nga takkoon ko soxna si du muuru def dara soxna sa dañ koy jox addiya di ko sukkal di ko raamal jox ko dara ji bu rëy loolu du diine ay naxaate la amul ci ahlu sunna wal jamaa sa doom moom waxatuñ ko mu kii nga jur mu doon sa géño moom waxatuñ mais fii kan ngay gis ñu toog naan la kii jàngale diine ahlu sunna wal jamaa doomam mi ngi ne ah ndeysaan yaa ngi ma bindal xalifa général bi man xam nga man ci waa ahlu buruxlu laa bokk muy El Hadj Moussa kamara mooy suñu xalifa général ñu ngi koy nuyu eh, di sàkk ci moom ñaanta di ko wax nuyoo bi mu partagé ñu ko ñëpp mooy suñu sëriñ mooy xalif bi comme te gars yi dañuy créer ay kii moom ay daayra ki yooyu ñun ñooy waa daayra ëxlu buruxlu di nuyu tamit sëñ jiiji moom it mook Moussa Camara xawma kan moo ci xalif bi mais kenn la laa si non Moussa Camara mooy xalifa général waaw sëñ jiji moo ci topp ak ak ñoom Akeneto nag ak soxna Maaxadi soxna Maaxadi soxna Maaxadi moom mooy kii bi moom mooy kii bi adiya yi nay ñëw nag adiya yi nay ñëw ci waa ëxlu groupe kontaan naa ci yéen di man foofu laa far waaw ngeen def ñaan bu baax sëñ Alaaji Moussa kamara del del def ñaan sëñ bi sëñ bi oh Alaaji Moussa Camara <laughs> sëriñ bi mag la mooy suñ xalif de lu mu wax ànd naa ci <laughs> lu mu bëgg a wax ànd naa ak sëñ jii sëñ akay na ton moom waa ahlu burux yooyu daal laay wër man faruma fenn nag damay wax nii rek li ma gis ak yi may seede loolu laay wax waaye fi ma mooy ci waa ahlu burux man damaa am lu ma metti sama combat wax naa leen sama combat mooy damaa yeewu Sénégal fii ñu ñëw tegal ma ay sant ne sant yi ñoo fi gën man ànduma ci sénégalais laa kenn moomu dëkk bi ñu ne Mbàkke si ñas ak euh, laay ak ay dara sant yoy ñoo fi gën xëccël ñu ay galle man ma lank sant yi fi gën ci sant yi sant bi dakk ci sant moy job job li moy sama combat paa yi toog fii ne seen kër bàyyi ñoo fi gën seen doom man nan katu sangara gënum nan katu sangara mum ak neew mako baax laa ku taxaw di nan sangara gëmu te duma bayal bayu kenn te ku fi taxaw naan diine gi sa baay yow la ko kii wala yaa moom diine gi loolu wax loo dëgg ndax alxuraan bi moo ko kii moo tax suñu combat daal du combat boo xam ni danoo far fenn daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.